mooy plaza bi ñu ngi fii ci immeuble bi nga xam ne fii la consul bu Sénégal nekk ci njiitalu président Babacar ak président Samba Diack ñoom ak ñoom ñun ak ñoom nag amuñu ñoom benn problème suñuy jantal grand lañ ñu ngi liggéey liggéey bi mais comme administration bu Sénégal la ñuy waxal donc fale ñu ñëw fi nga xam ne mooy consul bi pour mën a jàllale message yi donc léegi li ñuy def nag mooy dañuy bàyyi ñi nga xam ne ñooy patriotes yi ñu wax li nga xam ne mooy seeni i message kenn ku nekk ci ñoom après ñu wéyal marche bi. asalaamaaleykum wa rahmatullah ñi ngi ziar mboolem ñi nekk ci dëkk bi ak mboolem Sénégal yi nga xam ne ñi ngi Sénégal jiital suñuy waajur ak mboolem kilifa diine gu fa nekk suñu président Macky Sall di ko xamal ni sunu naqar ci sunu réew ma ñu ba ñu bàyyi nekk fii ñu nekk ak jafe-jafe yi ñu fay dund di São Paulo Brésil di fa dégg Sénégal ay scénario yoo xamante ne dafa xalawe torop torop torop te tuuti lool tey képp kuy sénégalais te nekk ci dëkk bi am ci kersa lool ñu ngi koy ñaan lii am na ci saafara ndax li ko organisé ëmp ko la koy terminé xam na ko kon nag ñu ngi koy ñaan lii mu dimbali ñu balaa suñu réew nekk ci jafe-jafe kenn la nelawatul kenn nelawatul jàmm xamoon sa njaboot ci lu ñu nekk xëccoowuñu xuloowuñu xeexuñu fii nit ñu civilisé fi ne couvre-feu 11 mois nga tëj sénégalais yi dafa metti fii 1500 personnes dee na fi bërki démb terewul ñun ñu ngi dox suñu manifestation laaju autorisation lañ ñu dimbali laahi wa rasuli sonn nañ trop sonn nañ trop lii nag dafa xalawee loolu Ousmane Sonko képp kuy sénégalais képp ku di jullit boo jullee war nga koo ñaanal te xam ne kii Sénégal rek ko ñor bu doon ay caaxaan la ñun ñu duñ fi taxaw mosuñoo politique mosuñoo far fenn waaye Ousmane Sonko wallahi azim na ko sénégalais yi jàppale na ko sénégalais yi fonk maa ngi jégalu ñëpp nag jërëjëf waaw sama gars yi mooy injustice yi nga xam ne nii mu ngi am Sénégal nag a dund la mais nag dafa ëpp dañ ne lu ëpp day tuuru état Sénégal yàgg na ñoo fen parce que parce que fi may commencé mooy ci ci pandémie bi ku nekk taxaw na fii état Sénégal ne dugal na fi ay dugal na Brésil est que yéen ñi taxaw fii nii yëpp am na kenn koo xam ne nii jot na un franc yoo xam la ñuy njëkkee bi ci topp mooy fii ci Brésil état Brésil fii amul ku fi nekk fii rek chaque mois chaque mois état Brésil dina yëkkati benn xaalis boo xam ne dala koy dimbalee mm-hmm. kon ñun vraiment amul lenn loo xamante ne état Sénégal defal nañu ko kon foofu la ñuy commencé ba pare kon état Sénégal na bàyyi fen bi muy fen population bi ànd ko ak yenn télé yi waaw naan dañoo yëkkati ay xaalis jox étranger yi fii kenn laalu fi dara fi ñuy topp mooy complot bi nga xamante ni ñu ngi koy bëgg a complot Ousmane Sonko Sénégal na nit ñi nit ñi nañ nañ génn li nga xam ne nii dëgg la ñuy àtte nañ génn nañ génn xam ne lii lu ëpp dafay gor bu mel ne Ousmane Sonko nga ñëw jiin ko viol Sénégal ñi nga xamante si nii dëgg leen tax a jóg ñoom ñëpp xam nañ ne viol bi amul Macky Sall leneen la bëgg mooy xañ Ousmane Sonko 2024 pour mu nekk président te loolu ñun duñ ko ba duñ ko nangu te Macky Sall na xam ne moom moo ne woon deux mandats deux mandats lay def na xam ne mandatam jeex na nañu abal lii muy def nii yëpp xam nañ bii bi bii bi mooy jéem a écarté Sonko pour 2024 2024 nekk président loolu nag na xam ne ñun duñ ko nangu may lancé appel may lancé appel sénégalais yi nga xam ne ni ñu ngi dund Sénégal ñun ñu ngi ñun ñu ngi Brésil kon nag ñun wan nañ wan nañ leen yoon bi Sénégal génn leen ngeen manifesté waaw ngeen manifesté injuste parce que 2011 bi Ablaye Wade di def lii ñoom ñëpp dañoo génn kon nag bu leen kenn bundu xataal naan ay ay ay ay ay ku génn ñu jàppale ku gis nga démocratie dañ koy xeex te ñun jeunesse bi ñoo ko war a xeex kon nag Sénégal génn leen xeex il est temps il est temps ñu xeex. comme Ousmane ko waxee na ñëpp génn na ñëpp génn manifester war leen li xew Sénégal rafetul. si may kiiwee mooy bi ñuy marche léegi gis nañ image boo xam ne ni dafa taw jaram man sax dama ci rus dañu ñëw ba fële romb police yi ñu ñuy encouragé sax te xoolal fii Brésil à part États-Unis moo ëpp moo ëpp kaa ci ci ci àdduna bi mais teewul may nañu liberté ñu def suñuy marche Sénégal nag boo génnee ñu ngi lay saan ay lacrymogène xam nga dafa ñaaw dafa ñaaw kon nag kon nag maa ngi ñaan armée bi kon nag maa ngi ñaan armée bi police waaw amuñu autorisation am autorisation da ngay ñëw wax waaw liberté d'expression moo fi am comme ni ko sama waa ji waxee ah. fi may jeexalee nag fi may jeexalee mooy maa ngi maa ngi lancé appel armée armée Sénégal ak ak ak police Sénégal gendar gendarmerie de ñun moom ñu ngi rafetlu seen liggéey bu baax a baax ndax ne wane nañ affaire bi complot la mais police Sénégal xam leen ne ñi ngeen di sànni ay lacrymogène ak ñi ngeen di jàpp ay gor lañ kon nag vive la démocratie juste pour vous informer que nous sommes devant le consulat du Sénégal D'abord, ce qui nous a réunis ici, c'est pour dénoncer une chose qui se passe au Sénégal, une chose qui n'honore pas le Sénégal. Aujourd'hui, on a remarqué que depuis le président Ousmane Sonko a commencé à dénoncer les dérives du président, a commencé à dénoncer la corruption, il fait l'objet de persécutions. Il et je crois que y en on a assez. Le Sénégal est un pays démocratique. Mais aujourd'hui, la démocratie se rabaisse de jour en jour par le gouvernement de, du président Macky Sall. Ah, ah, ah. Nous dénonçons avec la dernière énergie. Macky Sall a tous les moyens qu'il dispose, mais il n'a jamais réussi à déceler un seul centime détourné par le président Ousmane Sonko. Maintenant, il l'accuse de viol. Un viol que tout le monde sait que c'est un complot orchestré par Macky Sall et ses partisans. Cela a été prouvé par l'enquête de la gendarmerie, mais également l'expertise médicale. Malgré tout cela, ils ont levé son immunité parlementaire. Ils ont réussi avec Khalifa ils ont réussi avec, avec Mais cette fois-ci, ça ne passera pas. Sinon, il va devoir passer sur des pour réussir son coup. Le Sénégal mérite un président comme Ousmane Sonko. Il est temps, aujourd'hui, juste pour vous rappeler que cette masse n'a pas d'autorisation. Malgré tout cela, on est ici réunis pour dénoncer. Ah oui. Si c'était dans notre, euh, propre pays, on est obligé de demander une autorisation ah. et malgré cela, ne sera pas permis de marcher. Dans dans quel pays sommes-nous Il est temps que cela change. C'est pour cela que la plupart qui sont ici, c'est difficile de réunir les Sénégalais. Malgré tout cela, ils sont tous ici pour dénoncer et dire à Sonko qu'il ne sera pas seul dans la lutte. Nous demandons à tout le monde de sortir pour dire non à cette force de parce que ça ne passera pas. Nous disons non. Je vous remercie tout le monde. Merci beaucoup. Non. Nous disons non. sama gars yi kontaan naa si yéen xam nga vraiment ba nu wootee gars yëpp ñëw nañ ñëpp génn nañ kon ça veut dire mi wane tey moo leen ñor te loolu c'est important tey jii nii lu ñu war a wax kontaan nañ si yéen bu baax a baax Macky Sall tey jii nii moomul Sénégal ñun dañ ko fal tey massivement pour mu jël suñu Sénégal xam nga défendre suñu intérêt sénégalais yi joxuñu ko pour muy défendre intérêt euh, français yi xam nga fii nii tey jii nii ñëpp xam nañ tey jii Ousmane Sonko du ma dugg si dossier bi mais ñëpp xam nañ complot la Sénégal na instant ñoom lu ñu desee ñoom jël seen i mercenaires yóbbu leen si télévision pour ñu manipuler population bi mais population bu leen ko nangu Macky Sall na xam ni Sénégal 86 boo xoolee Sénégal 2011 léegi nit ñi danoo yeewu nit ñi léegi danoo conscient léegi xam nga na respecté Sénégalais jox leen cër te lu ma bëgg dol si loolu mooy ça tey ji tamit na na na respecté Sénégalais yi parce que tey ji ñun mënuñoo nekk si benn réew boo xamante tey ji nii ñun suñu avenir la ñuy joué Ousmane Sonko dafa ñëw tey nekk patrimoine nekk loo xam suñu alal la xam nga tey du nangu kenn du ko fooyee suñ jaarale Karim Wade jaarale Khalifa Sall nan xam ne biiru jàll biiru jàll te xoolal luñ si bañul bañ ñu ko si nan respecté Sénégalais ça ne passera pas nañu respecté jox ñu cër xam nga waaw boo xoolee fii nii Brésil gii ñu nekk nii malgré tey ji pandémie bi rey na fi ay nit ñu bëree bëri autorisation amuñu ko mais malgré fi policier dañu ñoo bàyyi xam nga parce que fi démocratie lañ wax xam liberté expression ku ne dangay wax sa xalaat si nekk waaw nañ respecté Sénégal yi jox leen cër te xam ne joxuñu ko dëkk pour muy manipuler nit ñi di sonal nit ñi di xookatal nii fii kenn ragalu ko mënu xookatal kenn mënul ragaloo kenn waaw nan respecté sénégalais yi policiers yi da ngeen xam ne boo leen gaañee seen frères yi ngeen gaañ ak seen sœurs yi ak seen ak seen ak ak seen i kon respecté leen ñu kon xam nga dëkk boo xamante kenn du fa marche loolu c'est pas normal ma maa ngi koy yow parce que sama xol neexul quoi vraiment li ma métti Sénégal dafa bari quoi